pañe Auchan yi pañe Auchan yi pañe Auchan yi ni muy demee Auchan gis ngeen ko ndox maa ngi dugg ci biir Auchan bi Auchan bi nga xam ne moo nekk fii nga xam ne mooy buntu commissariat central ci Sénélec agence Sénélec bi bu Thiès Nord bi gis ngeen seen pañe yi seen pañe yi li nga xam ne noonu la ko ndox mi di yóbboo te ndox mi mi ngi dugg ci biir Auchan bi kon nga xam ne tey ndox mi dafa bari bari koo xam ne gii maara day taali boobu mi ngi dugg ci biir Auchan bi Auchan bi Euh, ndox la waaw ndox maa ngi dugg ci biir océan bi